waaye mu am ay kot nag ci biir xaside yi ci biir xaside gi dañ ci gis ay bayit yoo xam ni sëriñ bi suñ borom da ko ko may waaye sul la waaye xaside tawxiid lay tamit ndax dafay mel ni booy wax ba ci biir sax yow da ngay jàjjiwaat sa bopp waaye ci biir loolu jañ suñ borom wan ko yim moom boo xoolee euh, day tegale lu mat ay bayit yu bari yoo xam anta rek la koy wax anta rek anta rek ci biir loolu sax dag nu leeral loolu ndax jàpp naa ne am na fooy waxee fooy waxee ki ngay waxal jàkkaarloo ngeen bu ngeen jàkkaarloowul am na méthode boo xam ne doo ko waxee moom tey nan nga ñuy indilee résumé xasida gi bala ñoo dugg ci ab yaabi waaw jërëjëf sëriñ Hamidou mhm. euh, gu yéeme mooy bismil ilaahi ikfinil ak daara yàllaahu mhm. sëriñ bi sax euh, xam na yéeme gi mhm. moom mi ko bind ndax daana warlul mag mu ko mokkal jox la ñaar fukk ak juróom-ñett ca yooya jamono ci ngurdu mhm. warlu la fasu naaru góor mhm. warlu la aljanna mhm. ana wax ni képp ku ko mokkal dinaa la warlul fasu naaru góor jox la neexalu ñaar fukk ak juróom-ñett ci ngurdu warlu la aljanna ku mokkal xasida gi waaw xasida gi bismillah ak ak daara yàlla kon sëriñ bi moom mi ko bind xam na yéeme xasida gi muy xasida goo xam tam bi ko sëriñ bi taalif fekk na boobu fay yépp mën nañ ñi ñëw na ndax xas yi da njaareem la euh, xasaay di sëñ bi taalifi ci njaareem ci la bokk mhm. nga xam loolu mooy mujjantalu sëriñ bi ndax njaareem mhm. ci la mujjee teg bët sëriñ bi mhm. ba ni mu wujjee boroomam ñu door koo indi Tuubaa njaareem fukki at ak juróom la fa sëriñ bi sax muy diggante bi mu fa ñëwee wax ni raamoo masiri ilaa njurbel la daal la sa sin law aayonoo sirrama fi sayri ma raamoo kon daa am bu ko fa yàlla dencal mhm. euh, xasida gi nag bokk ci asraar yi nga xam ni sëñ bi feeñal na ko foofu ci njaar yi mhm. xasida gi tam muy xasida goo xam ni yàlla la ci bàkk mhm. xam nga sunu boroom jàngkat yépp xam nañ ni juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent la feeñal ci ay turu boppam euh, sëñ Tuubaa indi na tur yépp ci biir xasida gi biir xasida gi boo seetee tam xasida gi téeméeri bayit ak benn loo xam ni lépp daf koo jox yàlla boroomam mhm. bàkk ko ci turam yu màgg yooyu bu ne mu woo ko ci mhm. wane ci tawxiit nag mhm. tawxiit joo xam ni dafa wéetal boroomam wan ko ne yaa not lépp yaa yore lépp yaa sañ lépp yaa moom lépp yaay dogal lépp mu woo ko ci tur wu nekk ñaan ko ci kon xasida gi xasida tawxiit la goo xam ni am na ci biir du'a sëñ bi day ñaan Mm-hmm. boroomam mi nga xam ni lottul ci dara mm-hmm. tëlewul ci dara mm-hmm. wax nga léegi damirul muxaatab bi mu indaale nga xam ni mooy damir boo xam ki ngay wax da ngaa moom loolu euh, damir mooy pronom li ko tubaab di wax waaw na ñuy wax damirul muxaatab nga xam ni yow ki ngay waxanteel da ngeen a jàkkaarloo nga jàkkaarloo naan ko anta waaw yow yàlla nga xam ni day dikk ca euh, Seyduna Yunus ibnu Matta alayhi salaam bi ko jën wi wannee bi muy sàbbal ci biir laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin foofa dafa def damirul muxaatab day waxanteeg yàlla boromam directement waaw ca la gaa yi tegtaloo ni kon yàllaa nga woon ca biir jën woowa dafa wuyu yunus yàllaa ngi fépp ndax ci biir jën wi la nekk di wax loolu ni ko anta joxoñ ko ci pronom boo xam da ngaa jàkkaarloo ki ngay waxal loolu jànkat wax ni nit ki bu demee bay xam dara ci boromam rek dootul jomba ñaan dara lépp la koy ñaan yanantu bi alayhi salaatu wasalaam kenn wérantewu ko ci borom xam-xam yi mhm. ci xar ahadis yëpp mhm. indi na ko mhm. eh, na ngeen di ñaan yàlla seen borom donte sax buum bu ngeen takki seen dàll bu dagg la bu leen ko jomba ñaan yàlla ndax yàlla moom lépp te soxlawu lu dul ko ko ñaan mu may la ko sëñ bi nag wane woowu buntu fii nga xam ne nu la ko ñaane ndax ba yàlla ne yanantu bi rek sa wa iza saalaka ibadi ani fa inni qaribun ujibu daawata daai iza daani mm-hmm. kon fal yastajibu lii mm-hmm. waaw su ko defee mm-hmm. bu la jaam ñi laajee sama mbir man yàlla nee leen maay aji jegeñ jaamam maay aji wuyu ci képp ko may ñaan di ma woo kon nañu ma ñaan mën naa am ñu amee ci njub nañ ma ñaan buñ ma rëye woo nañ ma woo sëñ Tuubaa na def ci tawasul bu rëy ci boromam nga xool xasida gi ba mu jeex benn yoon la ci indi turu yonent bi mhm. ci xasida gi mhm. lépp yàlla la ko jox mhm. waaw wane na ni fii moom <laughs> bu muy tuddee yonent bi sax intermédiaire lay doon jëm ci moom rek waaye lépp la jox yàlla kon xasida gi dafa we ndax lépp dafa indi turu yàlla yi am yëpp bu ci ne mu woo ko toroxlu ñaan ko ngir yàlla wuyu ko euh, muy xasida gu yéeme boo gisee nag ñaare xasida du am tarjumaan ñu ko gis saa boo ko gisee ñaare lëfa ko waral xam nga lu mu doon daf ca am lu luñ ko dig lu garaaw a garaaw. mu xam euh, tàyyeeluk taalibe yi xam tamit seen naagu muy bañ mu teg bët ca loola wooyefal benn jaamu yàlla su ko defee dañ koy mujj mhm. asaf loolu daal koy effacé nëbb ko li yem ci jàng mi rek dem ndax day bañ kenn gis ko rek ko mel ni man sàggan ibaadaat yépp nga commencé daal ni ah defatuma dara comme lii mhm. maa ci teg sama bët boo xoolee xasida gu mel ni nafaan yi mhm. nga xam ne sëñ Tuubaa nga ko tënk ci tënkee naabudu naabudu mhm. da ngay dégg man nafaani man lam yakun bi waladi wala bi mhm. walidin fa taaba xaladi mhm. ala lazi wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bi alihi wa sahbihi wal humadi salaat jir asir azimi samadi xasida gi foofu la yem pourtant yemul foofu am na beneen bayit boo xam deel la waroon a tàmbalee ndax naabudu la ko tëggee waaye dañoo wax ni bayit booba suñu borom moo ni ko bët bu ci tege borom mënatu la def lu tax ma la ko léegi loolu su génnee nag ku sàggan ku mel ni man danaan léegi man defatuma dara moo tax ñaare bu ñu jëlee xas yi xasida nëbb tarjumaan gi dañuy bañ nit ñi sàggan daa mel ni daloon na ko ci jës bu sax dal na ko ci jës bu sax nga mhm. xam ne koo jox borom daaru mu waxti muy lu ñu mhm. nëbb mhm. kon yu baree bari yoo xam ne daal yooyu waral tarjumaan duñ ko génne mais am na lu ma jaaxal sëñ Ablaye waaw daf ko daf ko doon jiñ waaw xam nga tey soo jigoon di dem ci président de la république waaw ngay wuti passeport diplomate dalay leer ne am na ko waaw da leer ne am na passeport mais soo demee ci commissaire de police bi di wuti passeport diplomate da leer ne boo demee lam lay tontu mooy loolu moom sama doole yeggu fa waaye dafa natt yàlla ba xam ko ba xam ni moom moom lépp li muy wut waaw mën na ko léegi nag bu ko taggee jañ ko anta rahimu lladi arju bi rahmatihi waaw te xam nga lu garaaw boo delloo ci alquran sëñ Tuubaa li déggam alquran la nit amul mhm. benn mbindeef amul loolu dégg alxuraanu sëñ Tuubaa moom rek la yàlla jagleel ko mhm. ndax moom alxuraan yàlla moo ko sax jàngal ko ko mhm. boo demee ci sootul xasri mhm. aaya yi ñuy tëje mhm. yàlla dani mhm. huwa allaahu lazi laa ilaha illa huwa aalimul xaybi wa shahaada huwa huwa rahmaanu rahim gis nga rahmaan rahim demal ci xasida gi mu ne ko anta rahimu alladi dégg nga tur yooyu la jël arjo bi rahmatihi ngoog an laa olaaxiya durran min ka yàlla rahmaanu rahim a ngo mhm. kon ci bayit yooyu la leen duggee mhm. nga dem mu ni huwa allaahu mhm. lazi laa ilaha illa huwa almaliku mu tekke ban bayit antal ko malik malik yamin malik boobu la jël ci al xal bi ma akun al quddus la bi shu la ma yaa mu ne ko xaddasta sirriya yaa quddus gis asalaamu na ko anta salaamu leen salaamu la ca teg ci alxuraan laa lay wax ni ma ko lëngalee. waaw yaa mu yaa mu'minu ik fii. dégg nga anta salaamul ladi al mu'minul muhaymin mm-hmm. mu ñëw ci muhaymin wabil muhaymin li shat noonu la ko toppee ba xasida gi jeex. Mm-hmm. maanaam ni ko suñu borom waxee. ay barke turu yàlla bi yàlla teg. moom la sëñ Tuubaa di tegaat ci bayit bi mu làngalee du ëppante ba xasida gi jeex. waaw loolu nga xam ne secret la tey boo xoolee xoolal bayit yi xoolal sëñ Xaamidun bayit yi. Mm-hmm. waaw dafa wax ni euh, maa ngi fan. Mm-hmm. yaa xuddoosu ji mm-hmm. yaa ngi xuddoosu xaddasta sirree yaa xuddoosu murtadiyan mm-hmm. an nii wa an karaditu dëhra yàlla anta salaamu mu jël fale asalaamu ja ni anta salaamu lazi sallamta kulli yamin uyubi nafsi bi tayyin min ka yàllaahu mhm. lu mu ca teg mhm. almuminu mhm. mu jël fii ni ko yaa muuminu ik fi janaabi dura ma kadarin wa hëbliyal am na fi daareen yàllaahu lu mu teg fële almuhaymin sëñ Tuubaa ni ko wabil muhaymini lishet bistiraika ma xat bextu sirran ilal jannaati yàllaahu lu mu teg al aziz sëñ Tuubaa ni ko anta al azizul lazi abri bi izzatihi izzan yuxallidu li takrima yàllaahu lu ca yàlla lu ca fële teg yàlla teg al jabbaaru aj sëñ Tuubaa ne ko aj bartali innakal jabbaaru mm-hmm. mu duggaat mm-hmm. dégg nga doon a liqan mm-hmm. kullal ida billazi ixtarta lu yàlla teg fële al mutakabbiru mu ni ko kafayta nii kullazi kibrin bi laa yaa mutakabbiru dégg nga dugal na ko ruttal kulla yàllaahu lu yàlla teg fii <laughs> subhaanallaahi amaa yusrikuun mu ne huwa allaahul xaaliqul baariu mu jël al xaaliq